attendant patrimoine ñu ànd ci ak euh, Corombaar tey jii nii mu faram fàcceel ñu euh, fi nga xamante ni foofu mooy Soumbédioune ñoom nag ñu nekk ay dëkkandoo yu baax yu waa RFM wax naa ko sànq Dieynaba mhm. euh, euh, Soumbédioune bokk ci patrimoine bu euh, Sénégal mhm. comme je l'ai dit tantôt moo fi jiitu sax capital bi nga xamante ne moom moo di Ndakaaru à la base mu nekkoon village traditionnel lébu ba tey sax d'ailleurs mhm. mais bu ubbeeku ko même ak yeneen ci ay communauté bëri itamit ay activité moo xam pêche moo xam lépp lu jëm ci wàllu activité ci wàllu artisanat ak yu mel noonu doon loo xamante ni dem na ba bokk tey ci histoire bu Sénégal bokk ci fenêtre wu euh, Sénégal euh, ndax nag saa yoo fa demee di nga xam ni que euh, li mu denc ci wàllu histoire c'est c'est énorme mm-hmm. donc tey dañuy dem xool yi Soumbédioune naam am na lu mu perdre ci son lustre d'antan modernisation bi moom moo ko waral wala modernité bi c'est comme vous voulez mais ak lu ci mën a am rek ñoom ñu ngi fa heure bu ñu xëyee di xool naka la ñuy def ba joindre les deux bouts malgré les difficultés de la vie ñu dem xooli ko ñëwaat Soumbédioune bi ñu ko sancee ak léegi ay at dox ci diggante bi naka noonu ay coppite yu ci jot a am. 1942 daal maa ngi am fukki at di fi daw. Soumbédioune de Soumbédioune te ma fekke boobu fii gaal daawu fi teer gaal yaa ngi daal teer teeru bële bële ca boori village kooku moo nekkoon teeru bi ñaari gaal ñeenti gaal bu teer wala ñaari gaal boo fi amul woon dara Seydi Asmaali boo fi amul woon dara ay garga mboose fi nekkoon ak falaawo ak i paftan e, kese moo nekkoon fi fële la yi daan teer bi ñu demee nag ba ci fin de guerre bi la nit ñi nag door commencé benn benn yi ñëw di sañ ci fii ba tax fii développé. ba ci wàllum koom lim moo daan am bu njëkk ci napp gi léegi mënatuñu sax am genn wàll gi. ngeen ji bu njëkk dafa bari woon ay jën boobu gaal yi bari wuñu boobu benn benn gaal fi boo wàññee ñi fi am gaal matuñu fukki nit boobu jamono jën wi boobu la jën wi gën a bëree gaal yi di gaal yi presque gaal bu si nappi boo teeree dangay fees waaye léegi gaal yi gaal gu si teer jàpp lu juróomi jën juróom benn jën da nga fees géej gi napp gi moo metti liggéeyu napp gi nekk si géej gi léegi moo metti gaal yaa ngi napp saxaar yaa ngi bato mbaal yaa ngi napp gaalu fila tourné yaa ngi napp gaalu mbaal yaa ngi napp bato yaa ngi napp si géej gi. li leen gën a gàllankoor di tunnel bi nga xam ne defar rek daal di wàññi dayog tefes gi. tunnel bi 2006 2007 la jeune fi su ma jun quoi jeune fi bu baax parce que clients yi doon ñëw fii ñu bëri ñëwatuñu ñun sax dañu handicapé dañu am sax place bu am problème fu ñu liggéeyee su géej gi feesee kese dañu am problème. moo la ñoom fu ñu liggéeyee fii bu njëkk dafa yaatu woon benn tali bi moo fi amoon bële national bi mais gis na léegi tali bi tunnel bi dafa handicapé Soumbédioune bu baax nappkat yi ci géejug Soumbédioune ak ñi fiy liggéeyee di sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a gersu ndax ñu ne bari na loolu lu suuxee ci seen bërëbu liggéeyukaay bile reportage bu am solo bi nga xamante ni def nañu ko ci euh, euh, kon euh, Soumbédioune ngir daal di wane patrimoine bi nga xamante ni am na fa ci dëkk bu nga xamante ni daanaka dëkku Lebu la. voilà daanaka dëkku Lebu la gërëm bu baax Ndeye Mati Dieng ci reportage bu am solo bi mu def foofu la ca Soumbédioune wax nañ ko jéem ba dëkku Lebu la mais mm-hmm. dëkku Lebu boo xamante ni am na ouverture ci yeneen ci ay communauté yoo xamante ni daan nañu ñëw foofu la ca Soumbédioune mm-hmm. donc finalement ils ont pu. cohabité ñi daan jóge Rufisque ñi daan jóge Kayar ñi daan jóge euh, Ngor fu nekk rek nit daan na fa joge ngir ñëw fi nga xamante ne moom moo di euh, Soumbédioune euh, ñoom itamit xëj na li leen différencier woon peut-être ak yenn bërëb yoo xamante ne dañ fa daan nappe mooy ñoom amoon nañ heure bu gaal yi di dem ak heure boo xamante ne ci la ñuy mhm. teer donc bu ñu ñëwee les gens en profitent pour jënd lépp li nga xamante ne ñoom moom la ñu soxla ñu fàttali ne village artisanal bi avant am daanaka pêche rek moo fa amoon. Mhm. donc artisanat mi ngi fa ñëw ci atum 1961 ci période festival des arts nègres. Mhm. donc ci la fa artisan yi ñëw ñu euh, mu commencé nag bokk ci euh, vitrine bi foofu la ca euh, Soumbédioune ni ma ko waxee woon sànq village lébu boo xamante ni finalement modernité bi am na lu mu lu mu changé un peu ci ni nga xamante ni noonu la dëkk ba di doxee mais terewul boo fa demee ba tey di nga xam ni réellement que lii dañuy am na ci ñoo mhm. xamante ni ancré ci euh, li nga xamante ne moom moo di histoire mm-hmm. wax naa ko sànq Soumbédioune moo fi jiitu sax Euh, Dakar donc yàgg lool ci li nga xamante ne moom moo di euh, taarix bu euh, Sénégal Soumbédioune nag jamono bi li ci métti rek mooy dafa nekk xëj na di vivre ces dernières heures ñu ngi koy wax depuis peut-être des années parce que depuis tunnel bi nekk foofu léegi ca Soumbédioune lu bëri dafa changé mhm. parce que tey accès bi gënoon na yomb bi nga xamante ne tunnel bi amu fa woon donc léegi ak tunnel bi eux ils reçoivent de moins en moins de visiteurs mhm. malheureusement li ñuy def am na solo ne tey di nga fa fekk lu ëpp deux mille euh, deux mille artisans ñaari junni doomi aadama yoo xamante ne ci artisanat la ñuy yëngu ñii di def maroquinerie ñii di def poterie ñii di def bijouterie ñii di def tissage ñii di def euh, vannerie donc ku nekk ak li nga xamante ni moom nga fay def ñoom ñëpp boo leen boolee mat nañu euh, lu tollook deux mille ah deux mille artisans donc tey ñoom bu fekkee ni ñoom la seen gi am jafe-jafe ci jamono boo xamante ni on ne cesse de parler de problème de chômage euh, da ngay xam ni que euh, bëri na ay euh, rëkk-rëkk yu fa am mm-hmm. mais ñoom malgré toutes ces difficultés la heure bu ñu xëyee ñu ngi fay nekk ñu ngi koy jaayante parce que jàpp nañ ni que xëcc bu daggul dikk comme on a l'habitude de dire i mm-hmm. tamit fi nga xamante ne moom moo di boo wàccaatee ci tefes gi am na fa ay gaal yu nga xamante ni ay gaalu histoire la yu yàgg yoo xamante ni yenn sax peut-être on les utilise conserver di leen toppatoo comme ni ñuy toppatoowee mm. euh, seen bopp ñoom euh, parce que saa su nekk dañuy bëgg bu ñuy wax histoire Soumbédioune ñu boole ci gaal yooyu nga xamante ni ñoom ñoo doon njëkk di dem di def navette bi diggante géej gi ak tefes gaalu looco yeeg yooyu ngir euh, mën a yombalal seen napp mm-hmm. donc village la bu nga xamante ni quand même bu ama ama am solo la ci histoire Sénégal waaye itamit bu am solo la ci wàllu njënd ak njaay bu am solo la ci wàllu tourisme ndax bëri na ay nit ñu ñeneen sax yu dul ay nit yu weer mais ñu dëkkul ci réew mi ñoo xamante ne euh, euh, Soumbédioune bokk na ci gox yi ñuy visiter bu ñu ñëwee Sénégal donc euh, yàpp yaakaar naa ni que dina baax quand kilifa yi gën a bàyyiwaat xel ci ana naka la ñuy def ba ñoom ñu mën a retrouver waat seen commerce d'antan seen ay activités autant nu mu mhm. meloon mu gën ko mën a melaat mhm. parce que qu'on le veuille ou pas tunnel bi bokk na ci li leen oui en fait loolu foofu laa bëggoon a euh, ñëw euh, que nekk euh, tunnel lu bi ñuy def Soumbédioune bi ñu gas Soumbédioune bokk na ci li nga xamante ni daanaka sax moom mu gën a rey village artisanal bi parce que avant activité yi bari woon na fa loolu c'est c'est récent li may ah. wax nii avant ñuy ñuy tabax foofu yi même accessibilité bi euh, euh, par rapport ak village beeg yooyu noonu dafa dem am am ay jafe-jafe tax euh, kon village yu Soumbédioune accessibilité bi baaxul commerce bi yàqu na et même sax par exemple ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd jën ah léegi même pour ñu garer problème la. c'est tout un problème voilà c'est tout un problème amuñu fu ñu parqué. voilà solution bi mooy. en fait li ma ciy yokk rek parce que c'est mm. une man j'aime dama bëgg sa rubrique bi wax dëgg neex yàlla vraiment émission lu am solo la lu ñu war a yaatal la. Mhm. loo xamante ni émission boppam la. Mhm. lu ñu war a yaatal la ci télévision Futurs Médias. Mhm. ndax toll nañ ci réew mi ñu xam li ñu amoon. ba pare war ko sàmm tàggat ci xale yi nag pour que ëllëg ñoom ñu mën a xam lu ñu am lan la. li ma ci yokk ci Soumbédioune googu rek mooy ci suuf waax bi dañ fa doon gas or. waaw ci plage Soumbédioune bi ci suuf. dañ fa doon lay or. waaw ba tey bi nga gis ay tuuti sax yu ko doon mais bu njëkk dafa bari woon oor suuf bi. dañ doon ñëw foofu da ngay gis depuis les années 60. bu ñu wàccee juste ci plage euh, euh, kii bi. ci tefes gi mm. dañuy dem boo layee tuuti rek am or. donc foofu bërëb la woon la boo xamante ne dañ fa barkeel daal dafa barkeel mm. ah donc loolu tamit euh, ñu ñu boo koy xool tamit étranger yi bokkoon nañu ko. def turu Soumbédioune bi lan moo ko indi Euh, mais mais loolu tamit baax na aussi. ñu yokk ci secteur non mais li mu li mu wax ci artistes yi yi fa yi fay nekk. artisanal mooy artisanal beeg ñi nga xamante ne ñoo nga fa nekk di daan seen doole loolu lu lu am solo mais tamit xam nga tunnel bi tamit ñu ko def suñu développement la. Oh. suñu yokkute la woon quoi ci ñun. contexte bi nga wax ni fa lañ doon loolu tax euh, artisanat yi nekk nekkoon fa mooy. Euh, contexte euh, festival des arts nègres bi nga xam ne 1961 c'est-à-dire contexte bi mooy président Senghor dafa bëggoon ñu def ñu defee foofu noonu nit ñi ñëw fi di jëmbat jaay parce que bu ñu paree bu ñu génnee dañuy dem duuta sec proximité bi la doon lañ doon lañ doon chercher donc léegi tolloon na moment bi nga xamante ne tamit développement day am yokkute dafay am ci réew bu ñu demee ba tabax tunnel bi la ñoom kay li ñu la war nañ defaral leen seen activité gën di gën di je suis d'accord ak ak développement baax na mais étude d'impact aussi am na euh, te je pense que ba ñu defee seen étude d'impact xamoon nañu ne bu ñu defee tunnel bi foofu noonu jafe-jafe dina am ci village village artisanal bi baax na mais aussi waa su Médioune ñi ngi ci ñi ngi ci pâtir be ñun ñu ngi ciy pâtir. pourtant jéem nañu xam naa lu bari ba ba def ca benn genre sortie eh. def continuité def benn genre <laughs> petit parking. jéem nañu. waaw jéem nañu jéem nañu. nga def benn genre. non sérieux am na fa. dëgg la am na fa parking bu ndaw. bu sa oto gaaree ak oto sa asal mu fees mu daal di mais jéem nañu. Mm-hmm. <laughs> waaw mais xam nga tamit euh, da ngay xool boo xoolee. ni Dakar meloon. Mm-hmm. loolu mënu woon autoroute. Mhm. tali buy dem foofu mënu woon ñàkk foofu. Mm. dëgg la tunnel bi xëy na kay xëy na kay lenn la. gën a gën a seet nuñ ko amélioré ba defaat beneen étude seet nañ leen mën a nañ leen mën a jàppale ba ba mu ba mu ba mu gën a yaatu. mais Corombaar da wax lu am solo dugal ci ne gaal yi nga xam ne moom lañu yoroon ñu ngi leen di sàmm. bari na li nit di nekk te barkeelul. Mm. sàmm sàmm sàmm sàmmuwul. da nga xam ne na la ko war a sàmm. Mm-hmm. tey boo fekkee da nga yor caméra bii te fonkuloo ko joxoo ko cër di ko nab nabee ne mooy sa teraanga bu ëllëgee doo ci am teraanga c'est très important moo tax ñoom seen loolu dañu sàmm noonu ba sàmm seen yi nga xam ne nii moom lañu ñu moom la ñu doon doonoo dafa am solo c'est très important waaw foofu daal dëgg dëgg jàng naa ko ci sa rubrique bi te am na solo en tout cas euh, euh, rubrique bu am solo la coro noppi nga mhm. waa jénn ba mi ngi wax waxu euh, tour bi euh, xam nga lébu yi ñoom amul benn ci seen village boo xamante ne tur bi dafa gratuit donc ñoom euh, yenn saay déformation wu benn non lay doon mooy indi loolu yenn saay ay garab lay doon yenn saay ay nit yoo xamante ne doon nañ fa fréquenté lenn ci lu leen jege donc fu ci nekk rek ak nu ñuy tiirewee tur bi c'est comme bu ñu naan ni que Sandaga ñoom benn garab la bu ñu daan toog rek ku nekk naa maa ngi dem ca sàndaga ba loolu moo indi tour marché bi donc c'est comme pour di Wakam euh, Soumbédioune Sandaga kayaar fu nekk ci ñoom uh-huh. am na am na am na am na benn appellation boo mm-hmm. xamante ne ci seen histoire la bokk wala comme uh-huh. ñoom dañu am seen particularité nu ñuy waxee uh-huh. damm benn yax ba mu mais mais justement euh, je pense que pour ça il faut il faut du si sal mi nekkoon euh, DGPU ñoom def nañu benn étude ci quartier yi Dakar yi ku ci nekk tour bi nga xamante ni jox nañ la ko def nañu jàngat ci loolu peut pour ñu euh, expliquer la un peu voilà les noms des quartiers euh, de de de Dakar parce que loolu aussi dafa bokk ci suñu patrimoine merci euh, Thioro mbaax pour li nga indi tey jii nii ñu doon waxtaanee Soumbédioune sànq maa ko doon wax waa Soumbédioune nekk ay dëkkandoo yu baax a baax a baax yu yu RFM Maymouna moom moo ñuy jaay jën ñun ñëpp ñu koy nuyu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu joxoon ñu ko jaaykatu jën yi waaskat ya fa ne ñoom ñëpp ñi di yenu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di bu baax a baax a baax eh, ñoom waa eh, Soumbédioune garmi waaw eh, xam naa ni jën yi jën yi nag mbooy jën yi bu ñu ko ci jigéen ñi waaw waaw yéen dëkk yéen dëkk dukkiwu leen pour bu ñu ko joxee tam da ngeen koy indi. waaw dem nañ ñuy jëndi. su ñu dañuy jënd de. bon. ah jënd waaye nag. Ah. kër ga lañ koy indi rek garaaw. commandé non ñu dañuy jënd Maymuna Maymuna Maymuna ñu sax ñu dañuy jënd Maymuna moo ñun ñoom Assane Gueye ñoom Ablaye Diop ak moom moo ñuy jaay waaw non non non dañ koy woo commandé ko mu defal ñu ko waasal ñu ko ba mu baax géewal ñu ko waaw waaw kay <laughs> nañu jox Maymuna <laughs> wallaay waa RFM euh, ñooñu nga xamante ni voilà ñooy suñu dëkkandoo waa waa Soumbédioune bëgg nañ leen lool lool lool lool puisque nag ci jamono defante lu baax lañu rek daal di dañuy